waaw loolu moom lu neex a dellu si man te day yomb pour dellu si dama wax ne que ñun ñooy bàjjenu gox département Pikine te ku xam bàjjenu gox xam bàjjenu gox ak askan bi ku xam bàjjenu gox xam qualité bi nga xam ne que moom la askan bi am ci moom te ñun benn bokk yaakaar la ñuy jàppale ndax ragal péete day xañ wërsëg te ñun le président Macky Sall la ñu bëgg moo am majorité au de trent 31 juillet euh, pour que li nga xam ne su mënu ko ci askan bi moo mën ko àggale mu àggale ko ak jàmm ak salaam ndax lépp lu ñu wut si njiit di ko wut si président di ko wut si euh, koo xam ne que war na mën a yore réew doxal réew mi ngi si la président Macky Sall avant ñuy nekk ay bàjjen gox ay ndey lañu avant ñuy nekk ay bàjjen gox ay soxna lay si kër yi avant ñuy nekk ay bàjjen gox ay leader lañu aussi si askan bi te loolu yëpp boo ko dajalee ñu war kaa mën a liggéeyee ànd ak askan bi ba mën cee am réussite dafa fekk ñuy dund si jàmm dund si jàmm nag ki ko mën a mën a euh, ki ko nga xam ne moo mën a prôné loolu mooy ki nga xam ne mooy nekk à la tête de l'État muy le président Macky vraiment moo tax ñun liste bi mm. nga xam ne que moom mooy listam euh, te fii ci département Pikine aw ñaa jiite ko mu liste Benno Bokk Yaakaar ñun moom la ñuy campagnal moom la ñuy voté te moom la ñuy wax képp koo xam ne rek gëm nga réew mi gëm nga Sénégal nga campagne ko nga voté ko pour au soir de 31 ñu am une écrasante majorité. wa enfin waaw enfin ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp man maa ngi tudd Mariama Diaw man maay rapporteur groupe Pôle Femme bi. dans le département de Pékin ki nekk nii sama côté nii en orange c'est la coordonnatrice madame Dieng Mbacké Seck moom vraiment dafa baax rek moo tax mu ne ma wax. mais ensuite y a les différentes membres yi fi nekk nii tey dañu sàkk dañu sàkk woon pour rencontrer en tant que pôle femme bàjjenu gox ñi nekk dans le département de Pékin pour gën leen a ñaax ñu taxawaat ku nekk takk takkuwaat pour que suñu liste bi benn bokk yaakaar gagné dans le département de Pékin. bu boobaa ana lan leen nar a defal ñoom. li ñu leen nar a defal bàjjen ñoom dèjà bi nga duggee gi saal wax nañ seen ay bëgg-bëgg ak seen ay soxla ak seen jafe-jafe. <laughs> awa ñang tontu na leen nañ ci jël en compte vraiment bu ñu demee yàlla defee ba ñu gagné ba dem assemblée nañ ci gën a am benn taxawaay ba ñoom lañ ci bëgg wax dëgg yàlla ñu ñu mën ko am.